jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag ñu dalal xale boo xamante ni barki démb dafa am lu mu def arène nationale muy journée boo xamante far Farkat production moo ko organisé woon ci njiital ba di Habib Lecran mu bëreeg cinq tonnes moom Washington am ci ndam lu rëy macha allah dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu félicité ko euh, bu baax a baax ci ndam li mu am waas maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waaw bàyyi jëli bisimilah bisimilah bisimilah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent di sant suñu ñetti waajur di sant suñu papa bu baax a baax a baax di sant suñu yaay di sant suñuy maam di bëggee koñ bu ma dëkk muy ñàccu keer fa laa juddoo fa laa yoroo rawatina Dakar mhm. waa Xandaalu waa ñàccu keer waa mhm. Sandial waa jamono. Mhm. ñu ngi bëggee ñëpp di siyaat ñëpp di bëggee sama waa dëkk waa Njaasaan sama mbokk xaadir yi waa kër Cheikh Mohamed Kounta laa di bëggee kullu bàyyi ma kenn waa bi sama waa koñ sama andi jàmm samay xarit samay doomu ndey maay bëgg ñëpp daal. Hmm. mooy loolu. sa diggante ak 5 tonnes euh, yéen ñaar arène nationale la seen komba taxawee ngeen dëkkante ngeen bëre foofu nga daan lan moo tax nga jëlaat ko. waaw maanaam ñun ay xale lañ rek man def naa kat combats am 4 victoire sama 5 sama combat 5 tonnes moo nekkoon sama cinquième combat. Hmm. boobu nekkoon sama cinquième combat sama cinquième victoire. Hmm. kon loolu dama koy sant yàlla. ay ndaw lañ nag mënuñu mënuñu dara dañuy mais dañoo bëgg a gars yi jox ñu suñuy morom ñu bëre. seen morom samay morom. ni nga bëree cinq cinq tonnes ngeen bëree yéen ñaar. waaw nu ñu bëree mooy maanaam ma ñëw tee ànd ak dal parce que xam naa man njool laa homme de bazar. Hmm. war naa mën a duma ku ne. te naa mën a lekk xaalisu làmba. gars yi hmm. ëpp ñu ma. Hmm. bàyyi jili gars yi ëpp ñu ma dama leen wax benn wax chaque jour yi dañ ma jàppee comédien mais balaa ñoo ma jeexal leen ñoom ñëpp. barke kon yow yàlla baax na man homme de bazar homme de bazar. homme de Baza quoi. arbitre bi sifflé. waaw cinq tonnes ak waa euh, nan ngeen bëree yéen ñaar ak lan la la bëggoon indil noo def ba daan ko. waaw maanaam dama koo duma dafa jël ay coups dama ko dër ba mu nekk nii ma soog ko jàpp ko daan ko. Hmm. man acteur principal laa. gars loolu la war a xam. Hmm. barki Seyna Mohamed. acteur principal mooy la. mooy maanaam man chef de bande laa. Hmm, coo gisee rek ngay dee. gars yi gars yi mënuñu comprendre ba tey man chef de bande laa. acteur principal. bilaay walaay. cinq am na doole. am na doole parce que liggéey na lu mu war a liggéey yàlla moo ñëw nag mais war liggéey na lu mu war a liggéey man tamit ànd naa sama mbokk liggéey lu ma war a liggéey ah, war bu ma ñëwee def naa lu ma war def naa jom ful ak fayda xeex ak moom duma ko jàpp ko daan ko yóbbu ko top cinq hmm. waaw bëgg na gars yi ma samay morom lii njaago amul combat Baba Jaxal amul combat pourquoi pas man waruma mën a bëri ñooñu ëpp ñu may victoire dàq ñu ma bëri ëpp ñu ma doole surtout ñu ma Liss Ndiago Baba Jaxal waaw mais ñooñu buñ la déggee est-ce que waas duñ ne waas yëpp parce que ñoom waas comédien la ñu ko jàppee rek boo xam ne day ñëw ci làmb pour neexal. waaw mais xam nga làmb tey ji tollatul foofu. Hmm. fii comédien yi rek ñoo fi siiw ñoo fi bëre di am ay combat képp ku taxaw fii di jëm affaire ibaadu kenn xamul ba ñaata mbër ñoo fi ne ñiy def affaire ibaadu yëpp ñëw toog croiser seen bras kenn xamul leen ñu dañuy ñëw wane suñu preuve jaayante ba am lu ñu am ci làmb ah, mais loolu duñ tee nag duñ ko bàyyi mais teewul dinañ ko wàññi ñu ngi ci cinq victoire du ñu ay xale xamal ne kooku du mbër bu ndaw boobu mooy sama cinquième combat sama cinq victoire mhm. waaw bi nga jógee ci combat bi yi ñu lay contacter waaw ñu may woo rek da ngay saaf rek non demee wul noonu barki kenn woowu may toog di xaar rek sama staff bu ñu waxtaanee ak ñoom lépp bu ñu xas ba mm. déggoo rek man maa seen ginnaaw mm. parce que ay ndaw ay ndaw la ñu ngi suñuy liggéey ne suñuy entraînement. Hmm. mooy loolu ànd suñu suñuy mbokk quoi. Hmm. waaw waaw ñan ñan la daan. waaw maa man maay premier combat maa ngi ko bëri jour combat bébé Saloum Franc. maa daan doomu kunun bu songaan Guèye. jógee foofu daan bébé Cheikh Mbaye. jógee foofu daan bébé Elton. jógee foofu daan bébé Saw bu Kër Massar mbooloo. yow ay bébé rek ngay daan. daan 5 tonnes. yooyu 5 tonnes kon kay 5 tonnes bu la neexee nga tuddee ko bébé 5 tonnes. waaw 5 ay ñi daan non demeewul noonu rek. kañ ngay daan grand wala. waaw instant yi man moom maay toog di xaar bàyyi jili parce que ñun ay booy lañ quoi dafa guñ dara ci làmb nag du ñu bàkku mais ñu ngi toog di xaar daal. Hmm. suñu étape lu ñu wax rek ñun ñu si seen ginnaaw. mais tey ñi nga laaj nii bu fekkee bëgguñu la ku mel ni ay Liss Ndiago ay Baba Jaxal ñooñu noonu ngay laaj bu bëgguñu la léegi fan nga jëm. waaw man sama adversaire du jeex fii Karbala bu Tëngéej mu ngi fii Fils de Lirou mu ngi fii Boy Diop numéro 2 mu ngi fii Boy Diop numéro 1 mu ngi fii booy Diop men booy Diop meen na. ñu ma ngaa jël booy Diop yow. booy booy yab nga booy Diop de <laughs> booy Diop. waaw yàlla baax na ñun daal ñu ngi ñu ngi suñu liggéey rek toog di xaar moom instant moom mooy loolu ñu moom ñu ngi ànd suñuy mbokk di liggéey quoi. Hmm. waaw noonu la demee quoi. looy wax waa équipe bi. waaw waa équipe bi leen def comme booy yi fi yàlla suturaal leen. Hmm. yàlla may leen dem ku mel ni maf yi ñoom maam Cheikh Leer booy booy fi am combat yëpp yàlla suturaal leen may leen dam parce que ñun benn lañ quoi bu ñu amee combat dañuy bu ñu amee combat dañ ciy jàpp mooy loolu écrit moom lépp jàmm moom waaw dañ fa yàlla mm, maa lay jaajëfal loolu di la nuyu na yow di la ah, félicité wax ni gala ji bëri na ah, trop waaw mais noonu la noonu la noonu nga indi stade keroog bëri na cinq tonnes moom da nga koo saaf déet waay gars yi noonu dañuy jox ñun ay doole xamuñu dara dañuy jox rek cinq tonnes ñëwul keroog ñëwul non ñëw de ñëw na homme base la dajal rek ku mën a xeex ku mën a bëri la dajal rek ñëw na de hmm. ñëw na de lan moo tax xeexu la yow bu nee naa la booy coolee fi na la mais benn booy sañu xeex am man. ñemuñ jàkkaarloo yow barki Sinamat booy ñemuñu xeex am man bàyyi ji lii balaa gaay yi naa la wax bàyyi ji bi naa leen naa leen daan ñoom ñëpp a jeexal leen. bilaay walaay. maa lay jaajëfal bu baax noonu la demee maa lay jaajëfal bu baax euh, waa Sintor. jaajëf bàyyi ji lii. jaajëf waaw.